mbokk yi ñi ngi am mbégte ànd ak yéen seen émission bi ñu duppee sans commentaire en route vers les élections locales de 2022 tey ñi ngi ànd ak Talla Sylla di coordonnateur COJER bu Touba di fàttali émission bi li ko tax a jóg mooy jox kàddu coalition politique yi ak mouvement yi soobu si mbir mu ni mel ak parti politique yi Talla ñu lay nuyu waaw maa ngi lay fay bu baax baax Babacar Samb donc di nuyu euh, mboolem téléspectateur yi nga xam ne ñi ngi ñuy seetaan ak fu ñu nekk ci àdduna bi di nuyu population bi nga xam ne ñoo nekk ci Touba yépp di jiital ci nuyoo bi nag ki nga xam ne mooy le xalif général des Mourides muy Serigne Mountakha moom sëñ Basiiru di ko ñaanal fan wu gudd lool ak wér gi yaram mm. di nuyu mboolem njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi di nuyu mboolem seexi Serigne Touba yeeg taalibey Serigne Touba yi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi di leen jox cër ak wàccuwaay mm. ñoom ñëpp di nuyu nag ñi nga xam ne ñoom laa bokkal coalition Benno Bokk Yaakaar kenn ku nekk ci ñoom ak fu mu nekk rek na jàpp na ñu ngi koy jox suñu loxo te di ko nuyu te ko bàyyi. semaine bi ñu nemmeeku di benn département de euh, dafa traversé benn crise bu gaaw bu éphémère ma doon jàpp ni liste parallèle ba bëggoon am si biir benn boobu fànk nan ko léegi joxante ngeen loxo lan moo si sa kàddu jàpp ngeen ni léegi euh, mbir mi li des mooy liggéey. waaw xam nga li ci am solo rek Babacar mooy dañuy santaat yàlla. parce que jàpp naa ne ñun li ñu boole dafay lu am solo mooy gis-gisu politique ak naka la ñuy def ba joxante loxo ngir tabax lépp loo xam ne jëm na ci luy defar suñu gox kon nag bu ñu sañoon li gën mooy buñ koy def ñun ñi nga xam ne kat ñoo bokk nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar toujours rek ñuy am déggante ci suñu biir yàlla dogal na xëy na loolu amoon na mais jàmm dellusi na ba joxante nañu loxo coalition Benno Bokk Yaakaar ñi ci nekk ñépp di ay authentique parti bi di ay ñoo xam ne ay alliés lañu nañu meloon ca 2019 mel ko ca 2017 noonu la ñu continuer waat mel ko ci 2021 est-ce que lu sincère la non lu sincère la man doon laa gëm parce que doomu aadama bi nekkoon ci leneen wëlbatiku ñëw yàlla def ay waxtaan am ci biir ba déggoo am ñu ñëw ne ñoom kat ànd nañ ci liggéey bi man dama leen di nangu nañ wax non mënuma gëm ay affaire ñàkk pexe parce que dama gëm ne doomu aadama bi man dama koy respecté ci choix bi mu am ak nu mu ko amee ak même bu fekkee ne nit ku mu rus moo taxaw wax ak moom mu dellu ginnaaw ca loola man damay gëm ne par principe damay jàpp ne nit ki du def lu mu gëmul. yéen seen parti bi dafa bëri ay guerre intérêt yéen guerre intérêt moo leen bàyyi si ginnaaw Matar Diop. loolu jàpp ma ne jàpp ma ne wax bu raisonnable la ñun xam nga lan moo lan lañu gëm. Hmm. mooy li ñu boole Matar man xam naa ko. 2009 bi ma koy xam ñu bokk nekk ci parti bi du lenn lu mu am lu ma mën a jariñ wala lu mën a jariñ kenn ci waa parti bi noona nag moom mu góor góorgóorloowee ñun tamit ñu ànd ak moom wala ànd ak ñeneen ñuy góor góorlu ba tey kon gëw ne intérêt wala lenn moo tax ñu ànd ànd nañu di liggéey dem nañu ba xëy président mi nga xam ne moo ñu jabootu ñun ñëpp natt na ba xool ne kii kat war na ko def tête de li ma gëm mooy mérité na ko te war nañu mën a ànd ak moom ci loolu. parce que moom pare na seen cogère. yow à haut temps danoon gis nga koy attaqué. non on n'est pas en phase c'est-à-dire dama lay wax benn affaire man ci àdduna li may doxee mooy euh, li ma gëm mooy jamono boobu xëy na am na loo xam ne amoon na ci coowal ñaari cogère yàlla dogal nag man duma rancunier te duma mere nit jàppal na ko moom Matar Diop président ma Macky sàll képp moo ko ñor. man président ma Macky Sall képp moo ma ñor yàlla dogal na jamono booba toog nañu waxtaan ñun ñëpp gindikonte ci nañ joxante loxo liggéey ngir jariñ suñu parti jariñ suñu askam kon dama gëm ne loolu ca ginnaaw la nekk li ma gëm te mu intéressé ma tey mooy li nekk ci suñu kanam te ma xam ne am naa lu ma ci mën a def te pare naa pour def ko ci li ma gëm mooy nag mataar mii ñu tànn mhm. kenn ci ñun ku mën a taxaw ne yelloowut li ñu ko jox amul ndax kenn ci ñun ku mën a wax ne moo ko njëkk ci parti bi amul. amul lenn loo xam ne yéen seen bopp yéen seen bopp yéen ko rejeté yéen seen bopp boo nee yéen ci seen jëmmi bopp yéen a ko rejeté ñan ci ñun man maa ngi nii authentique gu parti bi la man maay première ndaw fii waaw dama ne benn nit boo xam ne tey yaa ngi ci dëkk bi ngay ndaw bokk ci kuréel gii ñu nekk di APR bu mën a wax ne moom ma njëkk ci parti bi amul yow ak ñeneen ñu dul yow di ay journaliste wala ñuy ay observateur man nañu taxaw saytu seede ka ne bokk naa ci ñi gën a jàmbaar ci parti après man loolu li muy tekki mooy su ma jëlee man ak ñu mel ne man décision nangu lépp loo xam ne moom la parti bi dogal loolu dafay tekki ne ñi nekkoon ci parti bi doon ay authentique gu parti bi gëm président ma ci sàll ànd ak moom di liggéey ngir lu jëmale kanam parti bi ak askan wi te benn intérêt personnel tëxut dama ne ñooñu noonu tey ñu ngi ñëw ci ginnaaw euh, comment dire kii président Macky Sall. yéen 2014 yéen fi toogoon di rejeter investiture si solo ak lisam. te bu ngeen defee lii amalgame day am quand même. l'histoire est là xam nga loolu mën na doon sa wax. non mu am mais man les faits sont les faits sont là loolu am. kenn musul yow ak sa leader ba woon Sadaga. kenn musul génn ci àdduna fenn fu taala si la. mën naa indi de man boo bëggee ma indi. dama ne man laa wax man ay ay preuve. xam nga Sadaga ak keneen sañ na am ak problème Cissé Lo. Mhm. loolu xeexu politique la. weesu nañ ko romb nañ ko <laughs> li ma gëm mooy tey laay wax la woon démb sama yoon nekkul ci loolu man li nekk <laughs> tey ak li jëm ci kanam laay xool naka la ñuy fexee ba mu baax beneen bi des mooy man Talla Sylla kenn koo xam ne man naa taxaw andi hmm. ab ojo wala vidéo bu ma taxawee contre benn nit bu ñu investir ci euh, Touba Mbacké gi mu bokk suñu coalition amut man gëwma loolu man dama bokk ci ñoo xam ne dañoo gëm li ñuy wax discipline de parti parce que damaa jàppale ñun ñëpp ay nawle lañu kenn ci ñun ku jàpp ne yaa gën sa morom loolu ku ko def sam xel da ngay nax sa bopp noonu la demee ba ci ñun ñii dëkk ci dëkk bi damaa bëgg nit ñi nañuy nawloo seen moroomu nit yi xam ne doomu aadama doomu aadama képp la cër bu ko yàlla jox da koy xool ci sa bopp am na ñoo xam ne bu ñu leen joxoon cër bi tey du ñu nangu wala du ñu bëgg kenn di contre loolu ñu leen di jox kon man nag foofu laa nekk gëm naa ne ki ñu ko jox yelloo na ko te man na ko xam nga xeex bi lan la wan askanu Touba kan ñun dañoo ñëw pour liggéeyal leen ñun loolu moo ñu yitteel de. mais avant loolu doon rek da lii da ngeen toog si bombe à retardement li ngay wax yow la yow la y a des jeunes comme vous. des jeunes comme man ay authentiques yoo xamante ni gisuñu seen bopp seen biir parti bi dama ne dama ne. y a un mouvement de reconnaissance non amul sama attention tu ne me poses pas man maay pose des questions. je vais vous dire benn man taa la du ma dugg ci ay détails yu nangam man xamat gis nga. amul kenn ci ñuy contre kenn kenn laa la wax kuñ ma mën a génneel koo xam ne authentique bu parti bi lañ ah, man 2009 mooy koo xam ne dangaa bokkoon ci ñu fal président Macky Sall Babacar koo xam ne yow ba ñuy fal président Macky Sall yéen a gën a gën tuuti si ñu fal président Macky Sall waaw waaw vous ne représentez ok man euh, damaa bëgg nag waxtaan yi bu fekkee ne mën naa neex non si dañuy waxtaan bu fekkee waxtaan wi dama fekkee ne bëgg nga waxtaan wi neex da jël kàddu bàyyi ma man tamit ma jël kàddu danga ma laaj comme question pour ma répondre la dama la koy répondre mu leer pour ni ñuy déglu mën a dégg li may wax ba noppi dégg gi mën a jaay authentique boo gisee may wax loolu yow yaa ma laaj question nga ne ci seen biir parti waxoo ne ci biir askan wi danga ma laaj ci seen biir parti ma ne la man parti bi damay dama cee doy seede ci lépp 2009 mhm. ba parti bi sosoo ak tey dama cee bokk te lenn lu ma fi ump amul kon bu ma toogee waxal la ne la ñii ma dégg ñu naan dañuy contester wala dañoo contre amul kenn ci ñoom koo xam ne ba ñuy ŋat-ŋati ngir fal président Macky Sall 2012 bokkoon nga ca ñooña nit ki nag bu fekkee ne ba muy am doole ji doole ji ji ko yàlla jox ba mu ko ko jox bokkoo ca ña nga xam ne investir nañ ca seen dërëm kon tey boo toogee di wax sa wax ja am jot gu bari la. bu ngeen defoon noonu du ngeen gagné ay élection parce que ay alliés dañ leen dab. entre temps alliés yooyu yéen ko wax. s'il te plaît alliés yooyu nga xam ne dañ ñoo dab. dégguma ci ñoom ku contesté. ay nawle laa leen jàppe ay jàmbaar yu bëgg président Macky Sall. Hmm. ànd ak président Macky Sall ci kaw bul bañal ñi nangul ñeneen man li ma yéen seen biir parti sax même à Kolda am na ñu fa jógee. Mame Boye Diaw créé liste parallèle am. à Dakar Mame Mbaye Niang créé liste parallèle am. quand même c'est la démocratie. mais mën leen nekk tamit des gendarmes du parti. mënuma wax ci li xew ca Kolda ndax xaw ma ci lu bari Mame Boye Diaw bu amee lu mu def magum jëmm la umpalewul te umpantewul ak président loolu laa gëm. donc li ma mën a wax mooy lii fi nekk te ma xam ko te man ci wax lu bari maa ngi wax ci turu COJER di wax ci turu ndaw parti bi kon du ma wax lu ma xamut dama ne.

pour kii ma jàkkaar lool muy seetaan mu jële ci njariñ du yomb parce que boo ma laajee danga may may tuuti rek ma mën a yaat waa dama ne xam nga bu ma duggee ci allié yi Bass Gaye suñu xarit la ku ñu respecté la tey jii li ñuy def ma nga ca ànd ak ñépp ñi nga xam ne ñoo bokk AFP ñi nga xam ne ñooy Mor An Gueye ak ña mu àndal ca PS ñoom ñépp ñi ngi ànd ak ñun ci liggéey bi ki nga xam ne mooy Mafari Ndiaye ak ña mu àndal ca parti réew mi ñoom ñëpp ñu ngi ñëw tey ànd ci liggéey kon sama yoon nekkul ci ku bokkul ci ñun man bu may wax il faut que dama bëgg mu leer man li jëntiwuma koo xam ne da ngay taxaw di compte ñi la ngi leeral ñi nga wax ni ñoom ñu déglu man li may leeral mooy uh-huh. li ma xam mooy parti réew mi wala parti PS. wala parti AFP. wala yeneen parti alliés yi ba ci RDR yeesal. ñoom ñëpp ñu ngi ñëw ci coalition. Benno Bokk Yaakaar ànd ak ñun ci liggéey. ba ñuy wax waxu authentique. yaa ma tuddal turu parti bi. ma waxu Benno Bokk Yaakaar dama ne la ñi bokk ci parti bi. ba noppi di contre li président Macky Sall di def kenn ci ñoom ku bokkoon ca authentique gu parti bi amut samay kàddu la kenn ci ñoom bu euh, bu fekkee weddi na na ñëw andi. fi ñoom ñoo leen yóbbu 67000 fois. dama ne soo sax ba ngeen jaaxle ñoom ngeen jëlee ñu yóbbu leen 67000 fois. waaw man daal wax. <laughs> dama ne li may wax dafa leer da nga maa laaj question. dama am droit pour répondre. ñii ngay wax kenn ci ñoom ku fal président Macky Sall amut. kon bu ñu taxawee di saboté kon yéen authentique yi lu seen njëriñ yéen da ngeen mën a fal bay wuti boolu wuti ngeen hmm? ñoo fi a gagné foofu la ci élection léegi mooy seen palmarès ah, kon kay wax dëgg yàlla man xam nga kon lan laay jàpp <laughs> damay jàpp ne ñi nga xam ne dañoo ñëw pour langaamu si ñoom ba ñëwee ba tey ñoom grâce à ñoom ñun mënuñ gagné benn élection parce que ñoom balaa ñuy ñëw ñun gagné nañ 2012 ñaari yoon au moins que nag wax dëgg yàlla ñoom ba ñëwee ñun mënatuñ gañe kon kay ñun dama jàpp ne authentique gu parti bi laa gëm nañ wax ci li ñu tax a jóg élection nga élection la ñu jëm muy élection yu am solo ñun ñu ay ñun ñu ñu doon ay ndaw yoo xam ne dañoo dëkk ci commune bi dañoo xar suñu tànk tubéy ci bokk ci lépp loo xam ne dina indi développement économique ak gox bi dañoo pare pour taxaw bépp ndaw boo xam ne yaa ngi ci biir commune bi moo xam góor la moo xam jigéen la dañoo pare pour dem ci bépp secteur. moo xam dawalkatu sareet d'ailleurs boo xoolee suñu liste. mooy liste bi nga xam ne doo fa dem amul kenn koo xam ne ci société bi benn course bu ñu bàyyi. dawalkatu sareet secteur boo mën a laal boo demee di nga fa fekk kennam. mu toog représenté ña fa nekk xam nga lan lañ jubli ci loolu looloo xam nga lu ñu jubli ci loolu communautaire la looloo yoon moom moom dama ne xam nga lu ñu jubli ci loolu mooy dañoo gis conseil départemental importance boo xam ne am na ko. Mhm. mais tey jëlal sa micro yow nga def micro territoire nga dem ci askan yi nga laaj leen lan mooy conseil départemental. Mhm. kenn ci population bu Touba xamu ko loolu li muy tekki mooy ña nga xam ne dañ koo yoroon dañoo échec. parce que président président Macky Sall moo rey conseil départemental bu Mbacké musul accompagner Sëñ Fallou dama ne musul accompagner le président bu fekkee ne dañu la jox kër goo xam ne askan wi moo ko moom. yow nga de damay xeex ak ki jiite réew mi ba tax lépp même bu président Macky sàll jëloon lu jëm ci département bu Mbacké mu war a jaay ci conseil départemental da taxaw ne du du ca dem. ndax lan da ngay xeex ak président Macky Sall bëggoo mu def. loolu nga jàpp bu mais mooy li am. man su moom même même su diriger dogalul. dama ne c'est un conseil du ma wax lu ma xamul. seeni conseil ña nga fa. dama ne du ma wax lu ma xamul xam naa ne conseil départemental tey fii ci askan wi xamuñu ko. ndax li tax mooy ku ko jiite woon defut la ko war. joxu leen leen lu ñu liggéeyee xeexam ak président Macky la tax na ba lépp lu waa Touba waroon am wala département bu Mbacké waroon am jaaree ko ci conseil départemental mujjuñ ko mën a am ndax ka fi nekkoon xeexam ak président Macky Sall xeex que budget budget Fatick Matam fii ëpp leen fuuf bu ñu demee bay bay ëpp budget conseil départemental yaa problème yaa problème dama bëgg moom mi nga xam ne moo ko ressources yi nan nan ko yoonal dama bëgg waaw au lieu muy dem di dem campagne damaa bëgg mu bu ñu bu ñu ko mën a leer te yàlla tax. bu dee bilan la yéen comptable ngeen yéen comptable ngeen dans le bilan de sëñ Fallou. s'il te plaît dama ne dama bëgg man sëñ Fallou dama ne sëñ Fallou di ku ñu respecté moo jiite conseil départemental mooy président sortant bi hmm. dama bëgg yéen ñii di déglu ngeen. xool lan la mën a wax comme bilan mu teg ko ci taabal ji ne lii maa ko fi def kenn ci yéen du ko teg ba mais man nag damaa jàpp ne robinet oh, bi bu ñu ko tëjee bu ñu tëjee robinet yi muy xelle dama ne dama ne le problème c'est c'est l'état gëw ma ne problème bi état la li ma gëm mooy ki nga xam ne moo nekk ci diggante askan ak état moom moo taxaw ne man day duma jël lu jóge ci état léegi kan lay ko waxee yow da nga am prévu daf laa leer. dama ne non il faut arrêter quand même. nañu conseil là-bas yaa y a des partis qui représentent même leur formation politique tey booy waxee nii day mel ne yow da ngay wax au nom de ces conseils. ce qui est importance li am solo mooy man damay wax ngir yàlla dogal na tegoon nañ fi nit defut la ko war dama bëgg keneen kuñ fii tegaat. balaa ñu koy teg ñu xam li mu nar mu d'abord ñu xam procès ban la nar a dëkk bi wala euh, euh, département bi bu fa bu fekkee ne moom falu na ñaareel ba mooy mu bañ a doon koo xam ne même bu fekkee ne da nga am problème ak président Macky Sall mais waroo nangu président Macky Sall am lu mu nar a indi ci département bi mu war a jaar ci conseil départemental nga taxaw ne man waaw da may may ma wax nga taxaw ne man du nangoo jël lii du nangu lii du dugg ci dëkk bi wala du jaar ci man te bu jaarul ci yow askan wi duñ ci man a jariñu àdduna benn nit di sacrifier askanu departement bu Mbàkke parce que dafa am problème ak président Macky Sall. mais kooku may ma rek ci point bi c'est allégeance Sëñ Fallou. moo jiite candidature bu yeewu. Babacar da nga moo tax mu may ma benn trois minutes ma wax li ma bëgg a wax. dama ne man si la di doomu dëkk bi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar. am yéene boo xam ne dafa jëm ci taxawu sama askan liggéeyal leen ci lépp lu ñu xam wala lu ñu man ak fu ñu mën a jëlee moyen pour indil ko askan wi dama ne dama dul nangooti benn nit boo xam ne dañu la jox lu mel ne conseil départemental nga jël askanu département bu Mbàkke di leen sacrifier pour sa ay propre intérêt wala pour sa ay propre relation yoo amat nit te neexut wala tey neexul ak Macky Sall li ma gëm mooy tey naka la ñu mën a joxee nit conseil départemental nga toog fi ñaata at mënuloo ñu indil xeeru bilan dara doo ko teg ci taabal waaye joxuñ ko lum liggéey dañ ko ko jox mu taxaw ne du ko jël parce que neexawut ak état dama ne askan wi lañ war a mën a jiite waaw xam man lan mooy sama problème mooy sama dañuy jël ñoom waxuñ la loolu askan wi yëpp di leen gur ndax lan seen bopp dañuy jël askan wi jënde leen seen intérêt parce que boo amee problème ak nit mais amal problème ak nit nañ nañ close foofu hmm. ma ñëw wax ne tey ñun li ñu tax a jóg. continue quand yaa ngi doon. ok waaw <laughs> waaw bëgg na xam. dama ne parce que li nga wax dafa grave. kon yàlla dogal dooma may ma wax. te man dama leen wax kàddu gi pour ma tënk ko. ci benn seconde wala quelques secondes dama ne conseil départemental président sortant ak équipe am du ñu la tegal xeer ci kaw taabal ne mu lii mooy suñu bilan. <laughs> man nag li ma gëm mooy waa Pastef dama leen a faa ci benn côté parce que dañu am fulla parce que comme ñoom dañuy prôné tey li ñuy wax patriotisme. bi ñu leen indilee koo xam ne ñoom xam nañ ne bilan zéro la. doxewul noonu de mais attention dugg ci problème parti jaamur li ngay wax maîtriser woo ko. damay déglu propagande bi ñu taxawee ne dañ leen ah, amul dara ci bilan kon ñu ànd a bàyyi loo xel askanu Touba. sëñ Fallou Mbacké conférence des leaders ñoo ko. dama ne dama ne conférence des leaders Pastef ma nga fa ak tous les partis de Yewwi conférence des leaders ñoom ñooy ñëw Touba di ñu tànnal wala département. yéen kama leen tànnal yéen yéen kama leen tànnal yéen. di ñu tànnal mais par A ou B. bul tënk sa bopp yéen benn kama leen tànnal ba mu am contestation. dama ne bennoo bi ñu tànnalee <laughs> contestation amul. Ah, parce que kenn ku bokk ci ñun ku bokkul ci <laughs> suñu coalition xaw ma ko man xaw kenn ku bokk. ci ban amalgam yi waay sama waay ban amalgam benn problème lañ fi amoon. muy suñu suñu sëriñ suñu xarit sëriñ Cheikh Abdou Bali. yàlla dogal na waxtaan lañ ba déggoo ñëpp xam nañ bëggam ci président Macky Sall delluwaat na ci rang yi ànd ak ñun ci liggéey bi di ñu ci jàppale kon kay problème amul ko waa Pastef delluwuñu ci rang yi waa Pastef fii may wax ak ñoom maam daam loo ña ca ànd ak Cheikh Abdou Bara Dolly bu fekkoon ne ñoom ànd nañu ak Serigne Fallou Mbacké lu tax mu ci ma mais yéen am nañu jógee am nañu jógee benn bokk yaakaar dem yeneen coalition yaana amul xawma benn nit boo xam ne <laughs> dafa bokk suñu coalition boo xam ne. li gën a garaaw mooy sax yow authentique ay authentique yu créé reconnaissance si biir si biir benn taxaw ñu dañuy vote sanction. waaw dama ne. yéen am ngeen lu ngeen man xaw ma ñooñu. man li ma xam mooy li ma xam mooy man taala li ma xam mooy coalition Benno Bokk Yaakaar ndaw ñi ci nekk ànd ak président gëm ko bëgg ko nangul ko te di ko déglu ñëpp ñu ngi ci coalition bi dañuy ànd incha allah ci liggéey bi dem ci askan wi waxtaan ak ñoom laaj leen seen kaddu ñu jox ñu ko ci kattanu suñu borom danañ gañe élection yi lii kaddu la boo xam ne jox naa ko waa Touba ma sañ ko wax mooy dafa am ay jigéen ñoo xam ne man xam naa leen mhm. ñoom tey dafa laaj ñun ñii nga xam ne parce que dégg naa ñenn ñi di diaboliser naan waaw lii su nangam dama ne képp koo xam ne gis na listu euh, bopp fas yi comme ñoom ni ñu koy waxee <laughs> ab liste la waa déglu ma ab liste la mhm. boo xam ne tey Macky Sall du moom mooy dem ay élection mm-hmm. il faut que mu leer ci askanu Touba Macky Sall demut ci ay élection est-ce que du ko may troisième mandat ah locale non Mahmoud wax de depuis Mbour élection locale man askan wi laay waxal <laughs> xam nga loolu waxu politicien ak manipulateur caaxaankat yi bëgg a jël askan wi toujours en otage di leen fowe la man je parle avec la population je parle avec les jeunes avec les femmes pour que ñu xam lan moo xew exactement ñu xam que ne liste la ñuy demee liste bi man par exemple di doomu Touba. Mhm. wala Babacar Samb di doomu tubaa wala Samba Ndiaye di doomu Touba ñoom ñoo nekk ci liste bi ñoom bu ñu gañee seen rôle lan la. mooy dañoo ñëw ci quartier bi pour jege askan wi. man la xam parce que yow man bu ma nekkee sama koñ bii bëgg lépp lu fi xew ma xam ko man ko saafara baax na ci au moins structure yu mel noonu ma man fa dem bokk fa pour moo au moins 16 pour sama askan sama waa quartier kon nañu xam ne képp koo xam ne yaa ngi voté voté loo Macky Sall mais da ngay voté pour doomu Touba yi nekk ci dëkk bi. voté yeewi yeewi ngay voté di yeewi PDS di voté PDS maa ngi ñaawlu nag ak bokk gis-gis wala yenn xeeti discours yi nga xam ne dama koy déglu ñuy xeeb ay nit. di leen carica caricature di wax ne ñii sax waruñu tekki dara ci dëkk bi. yàlla suñu borom daa xam ne moom rek moo fi nekk. te mooy jox buur mooy jox baadoola mhm. li ma gëm daal ci ndaw ñi non département bi moom dama ne lu mu métti métti métti li ma gëm ay xeexu waa soow ay xeexu tarixa yu am fi parce que ñëpp benn lañu ñëpp benn lañu dama ne dama ne tey bu amee aussi c'est déplorable quand même c'est déplorable mm. ah, dama bëggoon dama bëggoon dama bëggoon te yàlla tax mm. yenn xeetu discours yi ñu di ko fi éviter man dégg naa loolu xam nga dégg nga seen xaas xaw ma wax na ko mm-hmm. muy discours boo xam ne ku ko déglu yow yow mii di taalibe dana la naqadi parce que li ma gëm moom mbirum politique la du mbirum diine kenn ku nekk ci ñun di ab citoyen am nga responsabilité wu tabax taxaw ci lépp loo xam ne dafay tabax sa gox kenn ci ñun koo xam ne defut loolu amul taxawaay ba ko war nit ki nag boo nee dama jóg pour participer sama ci sama développement wu gox mais quand même yaa bokk ci mouvement wala yaa ngi bokk ci association jógal nga sa bopp xam ne yow mii kat da nga war a taxaw bokk ci ñoo xam ne dañuy liggéey pour Touba jëm ci kanam man foofu laa nekk te gëm naa ne aussi ñun ñi fi nekk ñëpp ay taalibe lañu man day barke alxuraanul karim hmm. giñ naa ko ci yàlla ne danaa sax ci ndigal deec waaye nag dinaa taxaw amoo fit da mel da nga ragal de yow wala bopp de yow mi yow mi di woote di jàkkaarloog. di di di pis gars yi pour ñu. dinaa taxaw temm taala ma ma xamoon xamatu ko de. dinaa taxaw temm discours bi yaa ngi ci lépp loo xam ne xam naa ne lii mooy njariñul Touba te moo ko jëmale ca kanam. Ah, da ngeen tiit instant yii man ngay wax ni ku bu ma tiitee. man nit mënumaa tiitloo loolu la yàlla suñu borom dogal man taalibe Serigne Saliou la waaw dama ne damay woote ngir loolu mu rafet <laughs> ndax ñun dañoo dëkk ci dëkk bi ba pare sëñ Touba mooy suñu kilifa sëñ Muntaxa di kilifa gi ñu xam yan war ma lañ war a jox dëkk bi kon bu ñu déggee kàddu yoo xam ne dafay jëmale yëf yi ca ñag ba danañu taxaw pour alerter. <laughs> xam nga kan mooy ragal ku jaarul xel ko man Serigne Saliou moo ma yar benn doomu aadama buy teg say tànk ci suuf di dox koo xam ne ragal naa la amut yàlla suñu borom laa gëm moom laa doyloo ginnaaw moom samay kilifa di samay wasila comprendre nga kon ay affaire yooyu amut waaye damaa bëgg nag li ñuy def quel que ñu sóoraale population bi ñu teg ko ci yoon teg ko ci loo xam ne après askan wi dinañ ci am. seen jàll si coalition yi y' a le wàllu y' Gis-Gis maanaam man élection locale yi au niveau département de Mbacké engagement citoyen bi ma gis dafa yéeme yéen seen bopp ngeen gis seen bopp ngeen gis. en terme de ni ma koy faral di wax toujours euh, calcul. Mhm. malgré réew mi ñëw na mais nee nañ réew mi dafa war. Mhm. yi doon voté nee nañ ànduñoo ak réew mi ñu toog di xaar. Mhm. yéen est-ce que waajal ngeen seen bopp xam lu am solo mooy. Mhm. ngeen xam réalité terrain bi mais li ma gis mooy. Mhm. yéen seen communication yëpp c' est les réseaux sociaux te réseaux sociaux yi nit ñi nekkuñu fa nit ñi ngi si biir kër yi. est ce que yéen les jeunes war ngeen mën a relever le défi parce que Matar li ko wax def na ko de. Matar dama lay wax danga may may nag foog ma foog ma wax nag danga dem du ma wax damay wax. journaliste nga da ngay Matar Diop journaliste nga da ngay posé il a fait de son mieux Matar Diop. Mhm. li ko wax def na ko. waaw teel na jóg. teel a def ay jëfam. yoo xamante ni tey moo ko may la confiance de son excellence président Macky Sall ba nu tàbb ko.

carême moom non attends Babacar gis nga bëgg sa sa émission neex. non non non du bu mu tax loin de xam naa mais yow yow bu ñu waxalee yàlla ñëw nga ci man personnellement sama ay programme yoo xam ne du benn du ñaar du ñett du ñeent ci conseil bi nga xam ne ma man moom laa jiite. événementiel léegi mais chronique nga ma ne léegi léegi ndax ñun. Mhm. ak ñooñu ngay woowee ay opposants yoo xam ne tey lépp loo xam ne torox tànge la ñoom moom lañ moom la ñu yéene askanu département bu Mbacké. torox tànge ëpp na. bien sûr yow député Cheikh Abdou Bara Dolly ban doomu Touba moo koy gis ci ab liste. surtout ñu ne moo ko jiite muy dem di wote liste bopp. mais parce que au moins que yow ndaw Touba jéem nga. essayé nga ko ñam nga ko ne ko demal assemblée national toogal ma ngir càmbaral ma saytul ma waxal ma. lépp loo xam ne jëm na ci jafe-jafey dëkk bi nga di ma ko waxal lan la fa def ba mu demee saaga ndax ku mel noonu war na laaj conseil départemental. Ah, benn doomu dëkk bi di ko jox kàddu. mais maire député dafa mel ne ñun. maire député dañ ko fal maire député. maire député saaga kat boo ko waxee ma nangul la ko. maire député député contestateur koo xam ne dangay taxaw xuloo xeex waxante lu ñaaw ci biir hémicycle bi mais député dafa war a as kanam député dafa war a bàyyi xel way néew di doole dama ciblé ñëpp dama ne dama dem ci Fallou Mbacké sëñ Fallou dama dem ci moom wax ne moo jiite woon conseil départemental bi amul bilan. comme moom mooy na am na waxee mu ne la développement économique social te yéen yow sa programme toujours ba mu fi nekk da may may laaj. Hmm. kii man de ki ma yërëm mooy ndeysaan ki ma jàkkaarlool mu bëgg ma déglu te du laaj ñëw naa ci Cheikh Abdou ñëw naa ci Cheikh Sëñ Fallou Mbacké nee naa ne moom moo jiite woon yàlla dogal na bilan ñun xamuñu ko kon kooku kenn ci ñun. Hmm. ku war a jëlaatu xob di ko ko jox amul yeneen coalition yi nga ma laaj ya ma xam mooy am na coalition ma lan ci xarnu bi mais sëñ bi ñoo xam ne boo duggoon sondage man ak ñoom ci biir dëkk bi barke Serigne Touba man maa leen ëpp lu ma taxawul waa Touba. maa leen ëpp lu ma liggéey Touba kon jàpp naa ne dañ fay gisul dara moo tax ñu jóg gisul fi dara koy wax. damay bu dara nekkoon doo gis candidature yu bari yi waaw dama ne. département de Mbacké moom dafa mel ne état bi ko xaw fàtte waaw kon xëy na commune bu Touba da cee bokkul. bu fekkee ne département bu mbàkkee ngay wax gi ma xam xam ne li ci am ci xeetu réalisation indépendance ak tey musul am ci ñi fi jaar kenn nit ku ci def lu genn wàllaatu ma ci sax du tax duñ ko bàkkoo ànd ak nit dëkk ci ab gox kooko yàlla dogal mu am war ma ci kilifa gi ba tax ne lépp lu ma xam ne lii njariñ la ca gox ba mu taxaw ku leen gën am taxawaay si dëkk bi di fay impôt taxe waaw dama ne xam nga ay fay impôt participer si développement économique social du Sénégal xam yow da ngay question di répondre sa bopp yow yaa ne yow yaa ma wax ma dégg de yow yaa wax ne Touba kat département bi gisuñ seen bopp. ma tàmbalee di wax nga nga ne ma dañ koo war a am. le fait que nga nangu ne. bu leen bu leen ah? nangu nga ne def nañ. nangu nga ne def nañ. defagul leen li ngeen war a def. mais war a def hôpital <laughs> hôpital boo xam ne. une ville de plus d'un million d'habitants. ou bien depuis combien d'années Sénégal am indépendance sa tey. avant Macky Sall est-ce que am na parmi les présidents yoo xam ne jaar nañ fi kenn ci ñoom koo xam ne jëm na def réalisation bu toll noonu bu fekkee ne am na da ngay ñëw nga wan ma ko ma xam ko ak askan wi xam ko dama ne population bu Touba bañ leen te bu leen nangu kenn di leen jaxaseeg Macky Sall dama ne lépp loo xam ne war na ko ci dëkk bi la mu ca man <laughs> kémta lay kàttamam mi ngi koy def il faut que ñuy wax nit ñi dëgg Macky Sall mérité wut te yelloowut lii nga xam ne moom lañ bëgg a doxale ci digganteem ak waa dëkk sama yow lan nga jàpp moo waral seen difficulté yi ngeen am difficulté amuñ ko ah, amatu ko bien sûr que parti bi doon nañ benn élection mooy tranché ko élection mooy tranché te egguñ ah, man dama lay jox kàddu ne man Talla Sylla mhm. man maa wax tey jàkkaarloog askanu Touba. Mhm. d'abord maa ngi leen di ñaan kenn ku nekk ci yéen buñ eggee ci élection yi. mais kon da nga naan da ngay gagné. <laughs> da dogu. mais gagné <laughs> gagné boo nee balaa ma koy wax dafa am fu ma lu may njëkkee. da ngay ñaan yow kay déglu ma rek. bu gagné di am kan mooy gagné loo nit ñi. du ay jinne votant yi ay votant ñooy jóg jël seen carte. dem yóbbu ca mbañ gàcca ma tànn suñu tedd suñu liste pour mu dem siyeesee leen. Hmm. kon man bu may wax ñooñu laay waxal. da nga leen tëñu dama ne ñooñu. damay wax ak ñoom. ngir ñoom xam nañu. bien sûr que damay dagaan. damay dagaan seen i parce que benn ñun dañuy dagaan seen i kàddu seen i seen seen i voix. loolu bu ñu am rëy ji dama ne askan wee fi nekk. ñooy patron kull kuy politicien képp koo xam ne yaa ngi fi da nga war a delloo cir askan bi dégg naa dëgg kon ñooñu bu ñu leen xeeb dañu war a dem ci ñoom mhm. dañ leen war a jox kàddu dañ leen war a déglu ñu wax ñu seen difficulté ñun ñu pare lépp luñ ci xam comme bu ëllëgee man dama war a dem toogal sama waa quartier ci bërëb wala sama waa gox ci bërëb lépp loo xam ne xam naa ne seen soxla la ma jéem ca taxaw ngir mu saafaraw mhm. mais nit ki nooy xamee soxla laam te yow demoo ci moom déglu ko mu wax la kàddu kon dama ne dañuy tinu te dañuy daagaan kaddu askan wi bu ko defoon du ngeen moom jàpp nañu ni seen coalition lañ koy gagné Casamance ka fay gagné xam nañ ko parce fa nekk xëy na moom dafa leen taxawu Dakar xëy na mën nañu <laughs> am ay ballonnement yooyu mais bu dee Touba lan moo tax lan moo tax à un fii ngeen ngeen ngeen di ngeen di ñaan. waa ok balaa may. ndax li ngeen waroon def da ngeen ko deful wala balaa may sa question dama ne. amul kenn koo xam ne yaa ngi politique. Mhm. te doo dem ci askan wi ñaan leen. dama ne bépp bépp campagne. Farba du campagne. du loolu waxu sareet la waay nga baal ma ci kàddu gi. ndax lam foo la dama ne dama ne amul kenn ku yaakaara dem ci ay élection te doo jóg saw dàll dem ci nit ña wax ak ñoom amul kenn ku am sañ-sañ bi dama ne loola nit ña di def ñun moom la ñuy def. te gëm nañu ne buñ ko defee bañ egg ca cëppaandaw ga ci kàttanu suñu borom xawma la weesu de ndax la weesu ndaw ñi amuñ ci woon kàddu mhm. waaye tey jii nga xam ne man dama cee dugg te man ma am taxawaay ci dëkk bi Matar Diop Matar Diop waaw même tuuti Matar Diop li ñuy représenté ak yeneen yi nga xam ne tey moo xam tey yi ñoom Thiam Sarr et ñëpp ñu ngi ci biir association yi yëpp képp koo xam ne xam nañ ne kii mi ngi amal njariñ askan wi ànd nañoo ak moom ci liggéey bi kon gëm naa ne askan wi ci boppam mooy jugal seen bopp joxal seen kaddu waa coalition Benno Bokk Yaakaar ci kàttanu suñu borom ñu gañe élection yi dem ànd ak ki nga xam ne moom la fi yàlla teg mu am ay moyen génne ko dugal ko ci département bi lépp doon. njariñu askan lépp doon njariñu askanu. Euh, Touba parce que man li ma gëm mooy euh, askanu Touba dañ leen war a taxaw dañ leen war a gestu dañ leen war a jàppale. conseil départemental dafa am lu ko ci war. ña nga xam ne ñoo fi nekkoon defuñ ko kon ñun dinañ ko def ci seen place. askan Touba ñoom maire bi Touba dañ gën a ciblé quoi jàpp nañu ni en fait moom a d' abord indi les solutions. waaw le département nag ce n' est pas Touba mais Touba am na si wàllu d' électorat moom mooy fal daanaka ku bëgg falu fii mm-hmm. yi. Mm-hmm. bëri euh, na coow yi damay ñaawlu li ma gis bërki démb ci dëkk bi ay nit def ko di yàq image u maire man de wax dëgg yàlla ku ma xam yow mii xam nga ne bokk naa ci ñi doon contesté monsieur le maire. <laughs> mais nag. bu ma demee ba gis ne sëñ bi moo tànn. te man may ab taalibeb sëriñ bi ñaareel ba mooy. ay waay Touba nañ bàyyi xel ne bërki démboo njaay am na ay ñoo xam ne ay noon laa leen jàppe ñuy ay salafis dañoo dajee ci grand théâtre ñoom seeni pexe lépp lu ñu jëm ci ba féewale maanaam taalibe yi ak seeni kilifa ñu ngi koy jéem egg nañ sax ba ci ñoom ñu jàpp ne kat ñoom dañuy xeex pour élection bu amee pour sëñ bi tànn gars yi dinañ dem voté papier blanc ngir mën a contre loolu dama ne. saa waay génne salafiste dama ne dama ne. bàyyi bàyyi sa man yeeg sa yi ngay def. non loolu yëpp non non non non ñu dellu si waat xel yi man man <laughs> man jaxasewuma xel. dama bëgg ñu dellu siwaar ci ki ñu doon ci li ñu doon ak li ñu moom dama bëgg ñu gën a jàppaat suñu gox gën a jàpp suñuy kilifa. gën leen déglu te bàyyi leen xel wommattu ci seeni ndigal xam ne Serigne Touba lim fi bàyyi lenn lu gën a rëy wala lu gën a rafet ne moom ci ci diine l'islam amut kon képp koo xam ne taxaw na di contre loolu man jàpp naa ne ñun dañoo war a renforcer suñu ay relation ak suñu kilifa gën leen teewlu seeni ay ndigal ba fépp fu ñu joxoñ ñu dem foofu moo tax ma ne la man contre man contre naa bépp nit boo xam ne tey dangay taxaw laat ka lii nga xam ne sëñ bi tànn na ko nga di ko saboté noo seulement yamuloo ca naan bu leen bu leen dem ba egg si di caricature loolu bëgguma ko gëm naa ne nag élection yi ñuy jëm nit ñi bàyyi nañ xel yi nga xam ne buñ ko defee mu ñaaw ci image su dëkk xëy na yéen nii mënuma ko wax mais junj doy na borom xel ñëw si seen liste bi euh, dégg naa seen liste très équilibré bon y a des jeunes y a y a y a y a les sages y d'activité maanaam maanaam da ngeen joxaat affaire bi askan wi loolu rafet na. Mhm. Matar Diop un jeune boo xam te ne si solo moo ko yar wane ses preuves sur le terrain tey mu ñëw bëgg maanaam jiite liste bu nu mel. ñu gis à ses côtés également les Bass Diagne les Morlo par fidélité ñu gis aussi des sages comme. Alla Sylla le général Diène Gueye le tout malgré bàyyi noonu lépp lu ñu jàppoon ñëw ànd ak moom maintenant nu ngeen di procéder pour mën a matérialiser le programme de Matar Diop na xam ngeen programme ak yenn axe la. waaw xëy na am na ci yoo xam ne nag moom suñ euh, waxtaanee ba pare. Mhm. dinañ am benn pole de communication. Mhm. boo xam ne dinañu programme lépp loo xam ne nar nañ ko yox fii ak élection ak naka lañ ciy doxee ak ban xeetu communication lañ ciy demee. Mhm. kon xëy na yenn yi duma ci mën a xuus mais kantaan nag lu jëm ci rafetlu. ni nga ko waxee composition wu list bi dafa am solo. parce que koo xam ne tey bañ la defee tëdd liste muy mataar Diop. la mu njëkk a def mooy xam ne lii ñu ko jox moom du moom rek moo ko moom. xam na ni lii du waa APR ñoo ko moom. xam na ni lii du waa coalition boo ko Yaakaar képp moo ko moom. moo tax tey boo demoon ca liste ba da nga fa fekk commerçant danga fa fekk marchand ambulant. da nga fa fekk tey euh, euh, euh, koo xam ne dafa jiite association yu mag. Mhm. da nga fa fekk dawalkatu saret da nga fa fekk bépp couche sos bépp couche boo xam ne tey mi ngi ci mhm. gox bi bépp secteur d'emploi transporteurs yi. Mhm. ñoom ñëpp foo dem ba ci Allo dakaar doo benn secteur boo xam ne da nga fa dem doo fa fekk nitam amul. li tax nag loolu ñu def ko mooy bàyyi xel askan wi jox leen cër ba noppi bëgg a ànd ak ñoom ci lépp lu ñuy def ba parce que nit ki dañu ne mënoo fajal saafara. mënoo fajal nit ki ja jàngoora te fekk ne xam xamuloo tey lan mooy tawatam. Mm-hmm. waa léegi nag boo bëggee xam tawati nit ki ci nu mu gën a gaawee mooy dangay fexe ba fenn fu nekk groupe bu nekk nga jël kenn ca ñoom indi ca li li nga yor. bu ko defee au moins que kenn ku nekk bu jugee foofa la nekk foofu bu la ko indilee nga mën a boole sa doole la nga am ak la nga mën a di jënti ngir dem mën a saafara lool. kon tey dama bëgg ñu xam ne bennoo Bokk Yaakaar nekku fi pour benn parti politique. Mm-hmm. nekku fi pour benn nit daf fi nekk pour bépp citoyen dépp doomu dëkk bi dépp doomu département bu Mbàkke fépp fu nit nekk ak koo mën a doon xamal ne ñi ngi lay tàllal loxo boo nekkee Mbàkke demal nga jox saw kart Gallo dama ne dama ne boo nekkee Mbàkke demal nga jox saw carte Gallo Ba Abdou Abdou Mbacke Ndaw nekk na propagande dama fa laay ñëw sax maa ngi ñëw si problème yi nga am tax duma propagande ba ñaa propagande ba mën nga wax sa xalaat mais damay wax sama xalaat ba pare ñaan ngi ñëw hôtel Galo Ba ñaan ñu dem hôtel mais doo propagande sa émission ah maa ngi ñëw foofu aywa yooyu am dafa nekk euh, loo xam ne dafa law ba au delà des autres localités ñu nga limee Mbacke mm-hmm. Abdou Mbacke Ndaw si yéen la bokkoon mm-hmm. nekkoon seen allié xëy na suba génn na ndax investir ñu ko mm-hmm. noonu la amee aussi Taïf noonu la amee si commune rurale yi problème yooyu noonu lu mu leen mën a wàññi mais bul bul propagande kam naan votel diw loolu loolu loolu loolu c'est pas ça élégant ngay bàyyi nit ki nag mu def lu ko neex. waaw mais attention am nga plein droit ne diw votel diw. mais pas fii donc. Euh, dama bëgg a wax ne. xam nga man lan laa gëm. Mhm. Euh, képp koo xam ne président Macky sàll moo la xool. Mhm. ba tànnal la boppam. Mhm. jiital la fa nga nekk man kooka danga ma doy. képp koo xam ne mi ngi contesté loolu. man dama jàpp ne dafa war a xoolaat digganteem ak ki mu jàpp ne wóolu na ko ba jiital ko ci partiam nangoo topp ci ginnaawam ba muy naqadi ak ba muy neex wala ñenn ñi sax ñoom moom ba muy naqadi fekku leen fi mais ñi ba ñëpp boo leen xoolee neex-neex bi dañuy topp jàpp nañu ne ci tool waaw waaw non waaw dama ne am na ñoo xam ne <laughs> hmm. ñoom seen politique bi yëpp dañoo jàpp ne intérêt bu jëm seen poos la man gëwma loolu comme par exemple c'était on est émission man du àdduna du soppeeku hmm. man du ma tooñ waaye damay wax loo xam ne ay fee ah la gis xam na la yow waaw dama fi nii daanaka sa audio yi moom mooy nekk si biir euh, whatsapp yi partout ngay cible ay nit di wax ak ñoom. waaw dama ne tu n'as pas ne dañuy waxtaan. waaw ko jugé parce que seen intérêt. ma nga fa le cas de Mbacké ay temps danaa leen gis ngeen di yéen moo tax moo tax ma ne politique dafa garaaw politique. parfois da ngay gis des coalitions surtout des yoo xam te ne da lay surprendre maanaam politique bi wala Sénégal lay wax lu am dama ne. alliés yi de alliés démb yi ñooy nekk tey ay ay kii ay ennemis ennemis démb yi ñooy nekk tey ay alliés parce que intérêt ndax looloo am looloo. bon le cas de man naka laa ko jugé. Mhm. mooy dama jàpp ne Gallo Ba. Mhm. ndaw la man Gallo Ba bul yaakaar ne xamante nañu. Mhm. waaye xam naay jëfam. xam nga doomu aadama bi man man nga ko bañ a xam. lu tax défendre kon au début s'il te plaît. man musuma comme que. est-ce que mos nga gis. que sa bi foofu. waaw ñu waxante yàlla. ak yonente bi. giñ naa ko ci Serigne Saliou ne. Mhm. musuma taxaw di contester galo Ba ndax xaw ma ko. demal nga laaj Rokhaya Diouf. mi ànd ak moom xam na ko. waaw kon waaw damay bàyyi non mais il ma ñëw ay personnalités. waaw dama ne bul personnifier quand man soo ma bëggee may soo bëggee am man euh, li ma li ma bëgg a wax. Mhm. man moom laay wax. mënuma ko tee wax. parce que boobu ngay wax. waaw dama ne. et tu continues à dama ne Gallo Ba xaw ma ko amuñu ay relation yu personnel mais xam naa jëfam xam naa taxawaayam ci biir Mbàkke njortu naa ne bis bu waa Mbàkke jëlee seeni carte jox ko dina leen liggéeyal lu leen Abdou Mbàkke Ndaw liggéey lu man xam naa ne Abdou Mbàkke Ndaw yoroon na seen commune bi xawma lenn lu lu lu waa Mbàkke xam nga dégg naa ñenn ñi ñuy kaas naan waaw Mbàkke bi yow Mbàkke bu fekkee ne avancé wul yéen Mbàkke mooy tax ngeen dem n'est-ce moo tax ngeen sonn si nii may ma waxtaan non dagguma la da ngay waxtaan fekkee avancé wul xam nga dañuy waxtaan ay nit ñu xel allez-y Mbàkke bu fekkee avancé wul dama lay bàyyi ba nga kii ba pare ma continuer li ma doon wax Mbàkke mhm. bu fekkee ne avancé wul mhm. parce que ki ko yoroon moo xamut mënut dafa tële yéen waa Mbàkke d'accord ngeen ne Mbàkke avancé wul tey ngeen ko mën a reconnaître yéen yéen waa APR la moo tax yéen tey yéen waa APR Mbàkke la Touba la moo tax tey ngeen bëgg jël def cible seen Mbàkke parce que xam ngeen ni pour mu dem sax pour mu ngeen pour ngeen gagner département bi il faut ngeen gagner Mbacké mënta nekk c'est impossible vous ne pouvez pas gagner le seen force ngeen ñëw. ngeen ñëw ngeen kii mais yow waa Mbacké yow doon yow yow yaa leen di faral yaa leen di faral maire quand ba pare ma continuer ci lancer bi ma nekkoon dama ne man ci département bu Mbacké laa nekk bokk ci coalition Benno mhm. Bokk Yaakaar. Mhm. damay dégg yenn doomu Mbacké yi naan Mbacké avancé wut maire bi fi nekkoon deful dara man damay ñëw pour appuyer leen ci loolu ñoom waa Mbacké xamal leen ne seen maire mais ma ma wax quand même allez seen ay voix seen maire bi fa nekkoon muy du Mbacke Ndaw yàlla dogal na mandam bi ba mu jeex puusul paasul deful lenn lu waa Mbacke mën a teg bët ma ne leen Galo Ba xam naa ne même bi mu bi mu yorul dara maanaam yorul maireu Mbacke mais ku nekk ci ñun gis na nu muy taxawoo Mbàkke. bul boole yu bokkul na taxaw xam nga xam nga on fait non non non ngay propagande déedéet. déedéet je ne te pas faire la propagande euh, dans mon émission pour seen intérêt politique déedéet. ma mën a wax waa Mbàkke xaaral nan tey rek nanu tey nan tey rek doon tey rek boobu ba léegi ñuy def émission ñëw nañu ba 42 minutes ba yàq émission bi parce que ñun ñëpp lañ fi nekkal mais émission yi li gën a bon mooy jàkkaarloog askan ñu propagande. lii ngeen war def par force wala li war a am. mais man du la may sama émission nee la ngay promouvoir nit wala ngay propagande. yaa ngi dégg man man benn benn laay doxee. benn benn laa koy doxee. waaw waaw. tu en as plein droit. nga ànd ak sa la neex. Mm-hmm. mais tamit du ma la may ngay propagande sama émission. ok léegi léegi ñu dañuy taxawaat foofu. la kaa Mbàkke. mënu ma fa dugg parce que si si man boo ma fa dugalee. politiquement am lu ñuy waxtaanee. te comme ni ñu waxtaanee Touba. waaw yéen vous avez des difficultés au niveau départemental xam nga dañuy waxtaan mbir mi dëgg la te dëgg bi foog ngay nangu ñu koy laal. Mm-hmm. ngeen dem chaque fois élection du ngeen gagné. Mm-hmm. face à une opposition à une bi nga xam ne dafa farouche du leen may a kuy naaw sa li naan sa sa sa donc di di di di di di di wadd fa nga jëm dafa sorewul est-ce que jàpp leen ni du moment bi du moment wu xasante wax yu mais mooy moment wu wut des stratégies pour reconquérir cette ville. parce que maire yi yi nekk fii muy maire Mbacké di di maire di maire Touba. di meeru beneen di meeru beneen ñëpp ils parce que les politiques de l'état dugg ci département bi muy de muy Promoville. dama ngeen xam loolu aussi les maires mu ngi dem avec leurs propres dama ne. mais RIP laa ko généralisé ci ñun nekku fi di danga ma laaj question damay répondre selon li nekk ci sama xel. Mhm. li nga ma laaj li ma ci tontu. mooy li nit ñi mën a. politiquement nga ko tontu waaw politiquement. mais dafa am lu man je suis. dafa am lu transcender politique. dama mooy. dama ne mooy que ni dama ne danga may may quand soo ma posé question temps wu répondre pour nit ki xam lan moo nekk ci man. mais mënoo ma laaj ba pare wëlbatiku bëgg a tontu ci sama place. non j'ai pas répondu à ta question. suñu cëppaandoo émission Talla euh, c'était juste pour leeral askan ñu mën a xam parce que yéen ñii di acteurs yi yéen yaakaar pour mën a xam fu ñu te seen tànk mais ni ñu ñooy jàllale li ñu war mooy ñu teg nekk si digg bi parfois ngeen am seen ay pexe jëm ñu tuur lëndëm jéem a génn jéem mais xam nga tamit il faut que ñu nit ñu jëm leen remettre alors delloo si leen kii mu nekk njëriñ ñëpp pour ñu mën a jeexal émission bi Euh, ban kàddu ngay gu mujj ngay lancé. voilà c'est-à-dire man euh, li may wax. bëgg naa ñu xam ne li ma tax a jóg ak li tax may wax lépp day delluwaat ci tuubaa lépp day delluwaat ci commune. lépp lu ñuy wax walla ñu koy def walla ñuy dox jëm ca day fekk mu méngoo ak njariñu département bu Mbacké boo gisee wax ji des fois mu neex walla mu. nit ñi maanaam li ñuy wax ñun mu doon dëgg ba pare nit ñi man koo déglu ba pare buñ ko déggee xam njariñ lan la leen di apporter li may wax te muy lu leer daal mooy ñun li ñu tax a jóg mooy conseil départemental élection locale 2022 yàlla dogal na suñu candidat Matar jóob la président moo ñu ko tànnal nangul nañu ko mais tànn gi ci biir coalition bi tànn lut waa waa dëkk bi waa dëkk bi nag ñooy dem tànnal seen bopp ginnaaw bu ñu demee ci ñoom wan leen suñu programme ak lan ban taxawaay lañ war a am ci seen côté ci kàttanug yàlla nag bu bu ñu fexee ba li ñu bëgg ñu am ko mooy doyadal ak ñàkk jox cër gi nga xam ne doon nañ ko jox conseil départemental yi ñun dañoo bëgg a taxaw ba loolu dañ parce que dañoo bëgg a dem ci askan wi jege leen xam ci lu ñu nekk rôle wala lépp loo xam ne lu conseil départemental war a taxaw ñu def ko ba mat sëkk kon élection yi ñu jëm nañu xam ne ñun dañoo ñaan dem ci ci yar ak teggin dem ci ci fulla ak fayda dem ci ci ànd ceeg askan wi loolu moo tax liste bi nga xam ne yor nañu ko bépp nit bépp secteur ak fu nit nekk dañ la caa bàyyi xel boole la ca léegi nag buñ paree. liñ ci war a def dinañ ko ci def fi ñu ci war a dem danañ ko fi dem waaye bu ñu kenn déglu wala kenn di ñu xaar ci lenn loo xam ne méngoowul ak réalité wu dëkk bi nañu xam ne benn provocation wala benn xeetu taxawaay boo xam ne jàpp nañu ne bu buñ ko taxawee ñu xeet ñu te ci kàttanu suñu borom dañ ko def ñun dañoo gëm ne kat président Macky Sall nii lépp loo xam ne ñi ngi ko koy waxal ci Touba yow mi ko koy waxal demal nga xool li mu fi def ak li nga xam ne moom la fi ñeneen ñi defoon incha allahu nag lépp loo xam ne xam nañu ne bu ñu demee ci élection yi ba pare dinañ ko mën a yokk ci liñ fi defoon man gëm naa ne loolu mooy taxawaay bi ñu war ci kàttanu suñu borom ñu ko def leneen lu dul lii daal ku ku ca nekk yow yaa ca nekk mais ñu nekkuñ ci lenn lu dul loo xam ne njariñu Tuubaa la fi may tëje nag rek nga may ma ba pare non damaa bëgg a benn message sama jeunesse gox yemu ca ma bëgg a lancer waale sama euh, maanaam sama jeunesse réew Babacar dañoo jëm ci ay élection eggaguñ ca ma gis deret di tuuru ma gis na deret di tuurukat ci ñenn rek lay jóge mooy ay ndaw te ma jàpp ne ndaw ñooñu ñooy ëllëgu réew mi kon bu ñu fowee seen bopp ngir yàlla bu ñu nangu kenn di leen manipuler bu ñu nangu kenn di leen fowe waaye sama jeunesse ñoom nañ bàyyi xel ci ne ki nga xam ne mi ngi leen di xeexloo moom xeexut te doomam xeexut jabaram mbaa magam xeexut nañu xool bakkan yan moo rotoon ci événement mars yi fi am ndax dañoo nar a continuer di tuur deret ji noonu ci réew mi li may ñaan ndaw ñi mooy nañu continuer takku nañu continuer gëm seen bopp nañu continuer wóolu dëggal seen bopp ci lépp lu ñu nekk waaye bu ñu nangu ku leen manipuler bu ñu nangu ku leen fowe nañu xam ne Sénégal ñun ñoo ko bokk li koy tabax du kenn ku dul ñun dama jàpp ne nag bu ñu fowee suñu avenir bu ëllëgee kan moo ciy perte ñun kan moo ciy perte suñu gox kan mooy ciy perte suñu réew kon ci loolu laay ñaax ndaw ñi élection yi lu mu metti metti lu mu tàng-tàng nañu ànd ak suñu bopp nañu xam li ñu bëgg nañu xam fu ñu jëm bu ñu def luy taal suñu réew te bu ñu nangu ko ñu koy defloo te képp koo xam ne nangu nga ñu la koy defloo yow jàpp naa ne euh, gàcce la ci yow ma ñaan leen ko ñoom ñëpp di leen wax nag ndaw ñooñu ak réew mi ndeysaan lenn rek laa leen di ñaax. ba def ne voté nañ voté ak yooyu. déedéet lenn rek laa leen di ñaan. parce que ay fee la yu may gis mooy nañu joxante confiance nañu bàyyi warante nañuy wóoluwante ci suñu biir na kenn ku nekk di nawloo moromam li ma gis ci réew mi tey dem na ba egg foo xam ne nit mënta wóolu même ki nga xam ne moom la bokkal day ak baay dama jàpp ne nag loolu yépp ñun bu ñu toogee ci ay plateau dañu war a bu ñu waxee ba jeex tàmbalee ci politique yam ci politique day mel ne kon ñun société bi ak tëddiinam wala nekkinam yooyu ñu te dama bëgg ñu xam ne ni ñu politique intéressé noonu lañu amee kàdd boo xam ne dañu war di wax tamit ci loolu loo xam ne day jëmale euh, société bi ca kanam mm. day gën a indi bennoo day gën a indi ak mbokkoo kon maa ngi sant di gërëm bépp téléspectateur yoo xam ne mu ngi ñu doon bàyyi xel di la sant yow aussi Babacar ci déplacement bi nga xam ne def nga ko mhm. di sant mboolem koo xam ne daal mi ngi ñu doon bàyyi xel di sant As mi nga xam ne moo nekkoon ci euh, caméra bi di nuyu ñëpp di leen sargal vraiment mbokk noonu lay wéy chaque fois ñu ngi si euh, en route vers les élections fii si département de Mbacké fu ngeen mënta nekk rek bu ngeen nu saisir yu ñëw defal leen émission waxtaan ak yéen si li nga xamante ni mooy jëm si wàllu wun mel émission bi mu ngi tudd sans commentaire ñu ngi nuyu ñëpp jaajëfal ñëpp fépp fu ngeen mënta nekk muy pouvoir du opposition mouvement citoyen tàll na leen suñu loxo numéro bi 77 642 27 26 pour seeni émission jaajëf